tenir fi ay yeneen mbeur tamit ci si hmm bo xolé Modou Anta bobu da nga doon dóor ba way kanam bi dara na ci du kaawu du def dara. hmm mais bi xolo ci bir xex bi jarul ñaari coup sax kaawu tamit. mais nak hypercute bi daa porté tamit mooy loolu. mais hypercute ba. hypercute bi daa porté hypercute yooyu yëpp. yu muy ah. jël xam nga. man ko mandon menton dafa neexu a resister de. Mhm. Ah, ah, ah jokel jokel yo ba jàngat nga ci def. combat boobu nag dafa dafa xaw a pronostiquer pronostiqué quoi. hmm lutax parce que ñaari ndaanaan la. Mm. kon seen daanaan la man dama koy seetaan damay seetaan ay combat parce que jàppoon naa ne sama làmb moo tërëde rek mais dama rêvé woon ne manqué dañuy bëre yàquwels waaw mm-hmm. waaw mais moo kii nu mu tuddee Ansoy mm-hmm. Ansoy daanaan la tamit jazz waaw jazz man jazz xeexam sax man gisuma ko gisoo xeexam de mm-hmm. waaw man mi de bëre bi laa gën di jazz bëreel man bëreem laa gën a ragal dafa am ndoxtu bëre daa am ndoxtu bëre ba pare ragalul ragalul mm. ragalul de. Mm. Dia ragal de. Hmm? déedéet moo tëradi rek mais heure bi waroon na weesu fii sax <laughs> ndax ku départ ak Modou Lo. léegi nag mbëri ko mbëri mbëri mbëri ah mujjee bëri nii. Hmm. dañoo umpale loolu ci moom. maanaam ñu ko mujjee jël. waa ñu ko mujjee jël. Mm-hmm. dañoo umpale combat man combat dama cee tiital koon si sax. ah waaw. ci maanaam lu tax nga tiital ko. xam nga taay bi dina ci jouer. relance bi quoi. waaw mm-hmm. hmm. njool doole la. njool. njool ak doole la. waxuma la nag waxuma la nag njool bu entraîné. njool doole la. njool mun na jàpp ndaama du jàpp. waaw téye ba pare xaj. léegi nag nga nekk njool mun a xeex. Mhm. mun a bëri am doole. ndaama li loo weex weex weex weex weex ah sa bëre dina gaaw pour nga jaaxal njool ma parce que war nga ko mun a daan ba ba ñibbi te du comprendre. <laughs> maanaam dugg ci moom yegg ci moom. daan ko ba ñibbi te du comprendre. Mhm. maanaam da ngay njaxlaf. da ngay njaxlaf. fekkoon si bëre dafa diib bëre bu wóor lay bëre. Mhm. maanaam da lay jàpp ba pare day benn bennal. ok noonu benn bennal boobu nag yàlla tere yàlla tere boo ci jëlee coup rek day yàq sa làmb loolu moo dal Modou Anta. waaw moom da jël coup perdu waaw da benn bennal. waaw benn benn ci rek mu mais combat bu neex la nag. combat bu neex la combat bu neex incha allah. mën na ci am ñoom ñaar. mun na ci am moom. bu ci amee ci ban côté nga xalaat mu ëpp mu mu boo ko foogee. xam nga nag gars gaay gars yi gars maanaam dañuy jaawale volume ak doole. waaw ñaar yooyu du benn mais daal njool doole la. man moom. <laughs> wali ba dana njool doole la de. njool doole la looy